lii tax mu way idda teg ca rabbana la no la naa la no la naa te moom jàpp naa banaa wuur yépp man sëñ Bamba jàpp naa leen nga ni sëriñ bi am na fu lay bi mu jibbaatee dab yi ku dugg dina nga ne yëpp naa ne kër yi paate yi ku ci xaram xaram ba law dugg ma xaram man dab lañ ma mu fees rek laa ma yàlla mi yett dab yi moo paaya moo ëppoon jàll bi kon nag ndab li ñu ma tibbal dana ma koy duy ba mu fees ñii xeeb seen i cëriñ naw seen cëriñ morom nag dana ku ci xarab moo xalab law bi ku ci sant tuuti booy xarab xarabal law bi man ndab lu ma dékk mu fees laa mën ndab lu ko dékk mu fees du léeg-léeg nga jàpp surga fii ci mboora moom jël li du tax nga ëpp ko kol di ba ko yàlla wutal kolom bi sa jël li tam waaw ay ma selu la si na in ti xoona yàlla ko mooy fay di ful ca noona am ñaata abatin la wax ci fépp te xam gu waay app loola fop da lay yëgal ni mooy borom jasaaw jàngal yu laay fu li man yasaaw kër la Sëñ Bamba yónnee wolo naa maam Cheikh Rafal ñëwal te ànd ak mbooloo Cheikh Madou Gueye Gal Cheikh Madou Gueye Gal limal Njaay roqi Ahmadou Lo ma Samba Njaay moom waqi mook sunu maam Ceerno maak sunu maam Ceerno Ibrahim da mal daaru la Bamba wooyandoo yar Ibrahima duma leen toppandoo danaa la wax la leen sëriñ ba sant ba ñu demee gànnaar ku nekk yi cant nanu ko dégluwaat te ubbi ma ñetti Ibrahima am yooyu ñu ne jëluñoo roy hmm. maam Thierno Ibrahima Fati. maam Thierno Ibrahima Fati. waaw ah. sëñ Ibrahima Ibrahima Fati moom nga xam ne pël yee ko naan Thierno Ibrahima waaye Ibrahima Fati la tudd. Ah. maam Thierno moom hmm. ak sëñ eh, Ibrahima Sarr Jasak. ak Cheikh hmm. dana ñetti Ibrahima am yooyu jëruñu jot toppandoo. bi sëñ bi wàcceeb liggéey bi Cheikh Ibrahima ana ji maam Thierno fee Darou Mouhty ba mu jubee dëkk ba ñu ne ko Cheikh Ibrahima ñëw danañ nañ bàddi sàkkeen yi tëral nan bàddi sàkkeen yi tëral waaw ñu naan ko teeñu yaatal bunt bi mu ne ko borom kii kii nu bokk jaarale ko ci bunt fa mu faa wala laa koy wala da ko bàddi kooku xool nañ kan muy siiba fala dala ñaari ibrahima duma leen toppandoo yi yaari ibrahima duma leen toppandoo danaa la wax la leen sëriñ ba sant ba ñu demee gànnaar ku nekk yi cant nanu ko dégluwaa teew bi xol yi jëmee ci sëñ Bamba xalam ci xel yi ma dellu wax leen man ci xibaar yi gànnaar ci gàddi cheikh sidiya sibtul muxtaar ak la fa xew caat ya fii daani mooy yeen caat yi bamba am bi daani ak la ca xew ci buur yi ànd ak mbaaxaan ci daraje بدد لي سملا عدو قاشمي ربي بجاء المصطفى ابن عاشم يلا تسارل نكم بولم بوري ديكن فدارو بغارني شيخ ñaafli nañu leen buur yaa ngay jébbalu ñaaxal ko bu réew ku leen du noppalu lii tax mooy daate cara banaa la noo la naate moom lu jàpp naa banaa naaji naaji muy naar bi nga xamante ne bi moom moo ko fekkoon gànnaar xam nga bisuñ ko dajalee fii yëpp dana suñ boroom xanaa sama dajale naa lépp de mu ne ko waaw waaye des am na lu des mu ne ko la des fu mu ne mu ne ko gànnaar ñetti ati gànnaar yi la ko ne boo xamee jël la fa des mu ne ko lu ko fa bàyyee mu ne ko ña fa nekkan dañ di samay nit ma di leen teg samay sànje ñu ko tegoo ma di leen may samay sañ-sañ ñañ fa bàyyi nag dañoo jël sañ-sañ bi bàyyi sànje bi mën na ko baatin ba suul ca suuf boo fa demee ñettaat yooyu de lépp dana tegewaat ci sa loxo ku ci jariñoo te daa ñëw fii mm-hmm. te fi waaye joxoñ danaan ko baax a fi dëkkan mm-hmm. te la sëñ bi lay woon foofu waajuru sëñ Abdu borom dër bii ca la fa la ko jële mm-hmm. moom it da ko ne woon sax jaamu yàlla moom boole ci sa yaay bu sa waajur wu jigéen moom bu ko tege ci bët boo takkaat ci seen bokk li ma jële ci ñoom bëgg mu mu delloo waaw naaj yi moom nag ba defee ne sëñ bi sëñ bi dem moom far fa berkee Seex Sidi fi ñu daan nekk bu yàggee mu ne sëñ bi nañ jàll sëñ bi defee ne day day jàll ci soo yi yomb rek mu ne ko ñaxam ne daa jeex fii sëñ bi nag ne ko damaa defe ne yàlla ngay toog waaye tuut ko ñax mu sax <laughs> moom nag dootu dem mu defe na la bu ko fa bàyyee nguur gi ñooña danañ ko mënal dara léegi nag waaw naaj yi ma naa naaj yi ma gaa yeefal na daa jeex ci ba ñëw meelee ko posé ne ko ne kon waxtu woo fa yàggee jébbulul rek te ne ko waxtu woo ko jekko lijjanti waaw ba mu fa yàggee ba bi da koo jox ay béy te ak surtout Yaasin ne ko dee ko boole jàng bi bu set li ngay xalaat li ngay xalaat di ko wanaaw su bañ a lakk sa a a xol mën nëbal sa xol nga a a ba fa yàggee nag ba sëñ bi bëgg bu xam ne bëgg naa ñibbi sëñ bi ne xayma bi nañ ma ko toxalal ci xurwali mm-hmm. bàyyi ba tiwis mu toxal la foo xayma ba samp fa nag ne bu ko fa kenn fekk maanaam euh, sëñ Maxtaar Penda ki jur jigéen la moo daan dox diggante sëñ beeg ñi ñëpp bari maanaam lam daan def ku xëy mu jox la lobu baraay cere mm-hmm. ak kubéeru sat ndox boo ko suba la moo ko daan joxe ña daan xeeb kii ba nag mun leen ngëbu Maxtaar boobu rek ku ko lekk sawar du dund doo lekk sawar du lekk léegi nga ne gànnaar ak dañ fiy dund ñoom mag ñi ngëbub lan ngëbu baraay la ngeen koy jëfandikoo ak sax kubéeru sax la ndox waaw. mun la ko joxatee suba. waaw mu ko. waaye jar naa ñu eh, boobu dañ leen doon defar dañ leen doon def xëy na doon boobu. Hmm. waaw léegi nag moom bu mu leen kii yee nag. naaj hmm. yi nag guddi googee mu ne moom point baax na. Hmm. daal di bàyyi ba guddi mu suñu ko mel ne ko ndeyum jure daañu wax fekk sëñ bi ci biir xayma fekk maam a ngi tëdd ci diggante sëñ bi ak nit ñi. ba mu déggee mu ne ci biir xayma ba ne fa dell ba mu yàgg mu ne naa seeti naar bi. Mhm. dem na fekk sëñ bi moom mi ngi kàbbar ko julli naar bi deesi ji mu xàttan loxo mënut a wàcc. mu yenn ko dóor ci suuf. daal di woo gars yi sëñ bi ne leen nag bu ko loxalaat jox ko yére mu sol. Mhm. daal di euh, ñu jëlal ko fi muuraay ay seel ak war nga ak suuf nee nañ ko bu jënti nag ba ca jëkku ja mooy fa sëñ Mat Lamin Jóob Dagana neen nga xam moo doon bunt bi ñu jaar léegi nag ñëw bañ koy bañ koy yóbbu nag maam waxtaanoo xam nga gànnaar am ngeen jëf am nga pamta léeg-léeg mu dagg ci genn rek te tëgg naar bi mu ne ko ñu ne ko sëñ Tuubaa danoon bu ko loxo laal mu leen lali moo ko loxo dóor koo dóor ba naa bi sonn bi ñibbisee nag sëñ bi leen yë bijjanti ngeen ko ñu ne ko waaw mu ne mbaa loxo loolu ko ñu ne ko déedéet mu ne ko ñu ne ko ma taan bi de moom dóor la mu ne ko ma taal li ma la waxoon na tàngaay bii mu ne ko danga ne bu ko loxo laal laalee ma ko loxo bant laa ko doon laal <laughs> sa jëmm ji li ci mën a muñ sa digg yàlla yaa koy muñ waaye nañ ci ko ci waaw sëñ bi nga fi ak borom ndax bi ma jéggalee yéefar yëpp ñi ma ñi ma dajale te euh, géej gi fu ma noonu ma sa tooñe de mm-hmm. suñu borom da ne ma fu fi yoonu njéggal ne teg naa ko ci sa loxo afawtu anil aadaay tolol li wajji man nafa am nga xëyri sarmadan lastaat foofu mu ne waaye daa waxaat ak yonte bi mu ne man ak yaqinan anna mawlaaya kaana lii waanal mu xafa man xalaa ne yor dam fu fi yoonum jéggal ne de jox nan waaye maag yonente bi nag li munta muñ ci ko la def ah, lillaahi xarwa saltu inda galwa kooku moo jur yaayam waaw loolu bi waaw boobu muy teglu te doom yi sëñ surtout sëñ son bu di ko jàng ca rajo Lampa fi mu xamu ko dégg fii mu déet ba leen sëñ bi ba ñu bëgg ñibbi si waat nag naan leen ma wax leen bu ñu delloo Sénégal mhm. ndax natt ba ma yàlla teg bu ne maag yéen ñi yéen a koy bokk di leen wax nañu war a yërëme nit ñeeg ku la tooñ te ku ci ne tooñal nga yàlla te moo dàq faj te fajalu moo déggoo ba muy wax ba naan ba mu ne ma wax leen nag ni ngeen di def bu ngeen jabootee maam Maxtaar moomee moom la ne moo xaaju jël sàkket ba ne ko ndeka mbàkke denc ci la defoon nañ ne duñ jaboot mooy Maxtaar Penda Dieng moom da ko dégg ci doomi sëñ soñ bi waaw nee moom daa defe naan dañoo war a continuer nee na ko kii nag moo jur waajuram mu jigéen waaw ndeysaan ñoom seen muritu ga nee na maam Maxtaar dafa defe ne woon soxna takk soxna moom bugg ci li laay xara saltu ndagal dama laa xar baaxi njurul bel léegi kala si ñoom fan an لتلسس من جيسس اويتو في الله ورسوله ما نويت ما الآخر باخي نور بلاغي لتلسس من جيسس اويتو في الله ورسوله ما نويت ما ياري يا مجا أم لبرويل باتي جرومي انتبا دانيو بلا نانا لربي بجاء من وحبت المكنا خلي ليك خارجا من دغنا rabbi bi jaahil Mustafa wa man duuri sala o abli xuruji min bamba ko xalaji ma joor siise ñi ma as kamara candar lay wax duma ko siise diglu ma xalaati xibaar yi gànnaar ginnaaw xibaar yi daga nang fa mu jaar Bamba mi gawu la gonte daga na dugg gaali ndox ya jàlla àgg maam Cheikh Rafal boole na ko ki saadix fan yama am daga na soobuwul kum ko booleel sëriñ Omar Gueye ko ka deman lambar na Aliou Gueye rakk ja moo d'accord na teg naa ci Ibrahima a mbër maak Moustapha Gëmbala murit saadix la sama am ju tedd ja ñoo ñii boole ki Ahmadou keroog ba ma dem ganaar sëriñ gi ma deman lambar na ali yu gira gi mo da na tekna naa ci Ibrahima baasel mbër mi ak gembal ak murit sadiq la ñu ñaayar yaran ga ñu na ko ga rek baam ñu na ko war ka di ci ñu ñaay yoron karot ga ak reeram ba di ko yur kurs ga ak reeram ba cham ko cham maama at la bamba jënd kër Cheikh jënd kër ga fa ndar fa loodo Cheikh ya nan fa war ga karot bobé ponkal yooyu mu ko bolé ñoko lan tak ci seen ginnaaw ñom duñ ko rub fasu reew nit ñi ñoo daa takk saret ñoo daan ñoo daan rogo karab bi man de suma takkali pot ñoom ñuy takki saret waaw <laughs> déet tax ñi ñi tëkkuti pot léeg-léeg nga wax ñu la wax nga wax ko daanu ci nga ci <laughs> nga ah ngay ah ñoo daa takk saret bi ci seen ginnaaw sëriñ Tuubaa yéeg ci kaw ñoom ci fas ah, sun seen murid geeg sun murid gi sore na daal ah ma basel mbër maag Moustapha ak gëmba la murit saadix la ñalee yarun karoot ga ànd Bamba mu di ca war di romb waa tefes ga ba bala maam Cheikh Anta jënd kër ga fa ndar fa loodo Cheikh ya naan fa war ga cerey lay cerey ngëm ak la Sidi Anta daa def ak soos rindi na xar sakka bee xar ak ginaar neel mar aba lam sax ca ndar ak dagana bi mu gisee ci géej bi mu daa tawaat ca dana nañ ko waaw Cheikh fii di jaaru ci escalier yi Cheikh Ibrahima ko boot ba wàcc suuf mu soog a dem. nga ne Serigne Touba bi mu ñibbi taxaw ci bato bi. mu taxaw fii ci waaxu Moussa Siri. waaw dañ ne woon leen ma Cheikh Ibrahima ah, Fall. da nga gis photo boobu Blaise Diagne ci ne. Ah. ak gouverneur France. Mhm. bi bi mu ñëwee nag sëñ bi Cheikh Ibrahima ko boote ci biir gaal bi. Mhm. ba ci bitti. <laughs> mu soog a mu soog a dugg ci li muy dugg la kër googu it ci laminage moo ko jëndal. Mhm. jox ko ko dee moo tax ñaan kër gi ñu naan keroog. murid yi bëgg nañu mbir moom jéemoon na France waaw gannaaw bi nag la ko sëñ bi may sëñ Cheikh Coro rek sëñ Balla Coro mhm. defe naa moo ko jaayee rangoor bi xaw ma da leen ko may moom la naa bi mu ñëwee nag bi mu ñëwee Ndakaaru ba nga xamante ni bii dafa dugg rek daal ni mu dégg ko kër mu seyees jaañ bàyyi mboor jaañ fa ba li lee taxan mboor jaañ tabax fa jàkka am na la sindanoor di waajal màkk Cheikh Rafa daal di ni jaas fa bamba daal ko boot yóbbu këram mooy barab ba murit ya ree ba kek ko bay ta xaaju di xaqataay marit ya jooy di xaaju bëgg nañ ndax naa ko rek hmm? ree ba kek ko bay ta di xaqataay nag far benn xam nga la wax léegi ci sar la ñun dama la benn néeg ba ñu ko doon tëj nga xam ne ne mënut a sujjoon ngir tatal mhm. daa yem ci moom képp dañ def ci rab bu kii rokkaan sujjootam lañ ko doon bañal benn sujjootam du ci julli mhm. waaye war ko maaraakee na la ko yàlla fee lu ëpp douze mille personnes di jullee ci fee fi ne dañ doon wax grande mosquée waaye doonatu ko masaal ko jinaane grande mosquée ndax dama leen sëñ mag bi bi muy doon sëñ mag bi ëpp ci at taxul ñu ko fi jëkk na ngi fi bi mu màgg ci ko bañ mooy sëñ maam Cheikh Fall daal ni jaas fa Bamba daal di ko boot yóbbu këram mooy baraba murit ya reen a faal ba kekku bay taxaaju di xaq tay marit ya jooy di xaaju bisub Serigne Touba fanaan ne lambinaas kër maam Cheikh Fall bég na ñoom bég moo xam ni jooy loxo na France Cheikh Fall jébbal ko mbooleem kër ga ak lal ya ak baraag ya naa ko barke rëba sëñ ma ma xëyet di dem ndar la ko sarax Cheikh Coro moo ko def kër alhamdulilah yàllal xuddami xadimi xayral xalqi bil maqdumi taarix bi lim naa ko mu tolloo kasasin mbir mi fay naqar wa am ca jay su ci naqar wa am te téere boobu jasaaw sa koru jéeri jël ba géej gi bu ñu ne sëñ bi la koo bind arab hmm. jox ko sëñ Moussa Ka mu taalifaat ko